mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Parcelles Assainies open press xale bi nga xamante ne mooy Tapha Mbeur Tapha Mbeur moo war a laal ak Ada Fass le bii ñu jëm incha allahu rabbi arène nationale ñoom ñaar Ada def na démb open press waaye jotuta wax ndax ba dara desul lu dul wax Ada Fass daa ñibbi ne nañ ko fekk këram ñu ci bari métti loolu naqarlu ko wax ni Ada Fass xale la waaye loolu erreur la boo xamante ne xëy na bu ëllëgee dinañ ko rattrapé waat ci làmb ñu waat tey ci ki nga xamante ne mooy Tapha Mbeur mu ngi noonu dugg si am loo xamante ne nduróole nañ ko moog Ada Fass Tapha Mbeur sol na yére bu weex rango benn morso bu weex sol koppati Ada Fass gis nañ ci moom loolu démb dañuy dugg ci biir xool Tapha Mbeur nan la dugg see nan la def ak ay xaritam nan la def ak ay ànd jaamam Adama let's go

ma jël la yaay mbër. sama gaan la. loo nekk. sant yàlla bu baax. soo foo ne. ne sama roq di nëbbatu di di entraîné rek entraînement sax laa jógee nii. di waajal combat bu mag bu mag a mag boo xam si dalay dalay bett yow. yàggatul sax bu soobee yàlla. ah sa diggante ak Tapha Mbeur lan la ba fekk la tey open press. sama booy la. nekkul affaire lamb moom boole moom maag moom yàgg nañ quoi. ba ni yàlla def moom mu jugee koñam ñëw dox si suñ koñ bu amee bis wax ma ko lépp lu ma jàpp dama koy bàyyi looloo tax ma ñëw quoi ba pare mu nekk xaritu Giro Giro di sama rak sa ci man di ànd ak sama rak kon xam ne kii bu xewlee lépp lu ma jàpp dama koy bàyyi tey saa bi tey maa ngi e 15 caay te yëpp dama koy sumi fii déggoo ma de maa ngi sol 15 caaya te lépp dama koy sumi waaw waaw ndax booy bi loolu même yow bis boo amee xew dama la koy loolu samay nit laa koy solal loolu dina gën yow bis boo amee xew moom fee laa lay sol dama lay yokkal yeneen trois uh-huh. waaw. combat ba lay dox ci. non après xam nga waa ji dafa ma bu ma wax quoi dafa ma ma noppi. Ah. waaw laajte sama yaay pël boo ko laajee dana la wax. tey ma koo wax loolu la bépp yow ak pël ak man altine la ak talaata lu falaan ci man jóguma combat bi waxoo ma ko yaag Pël doo nga koy dox sama yoon newu ci. bàyyi ngeen waaw mais a lu lu lu waxoo ma ko. naa la ko wax ah dañ ma a waaw waaw préparé ci combat. waaw. naa ko ko gisee. waaw ça va état bi baax na. waaw lu ñu yaakaar rek def nañ ko. waajal nañ ko waaw. muy bëre xale bu mel ne Ada Fass. combat bi nan la ko Tapha Mbeur war a mën a fas yéene bëree ak nan ngeen koy yebee ba mu am ndam ci combat bi. waaw ndam moom dañ koy yaakaar mais li nga xam ne ni moom la ñu war a def nga xam ne yaakaar nañ ko mën na ci am ndam. defal nañ ko moom. waajal nañ ko bu baax. dina xeex wala bëre. Ah? xeex wala bëre. waaw lu mu laaj bëre doo dañ wax bu laajee xeex bëre bëre bu laajee xeex bu laajee xeex xeex bu laajee bëre bëre. Ada daf ne moom xale la dafa am mbër mag la te ñoom ñaar yaakaar naa ne boo leen doon expliqué boo xoolee ci taay dafa am mbër moo xaw a sut mais Ada Fass moo ëpp volume ñoom ñaar ku ci nekk boo doon expliqué ci xeex wala ci wàllu bëre wala ci wàllu jàppante kan la ci gën a nekk avantage am. waaw kenn ku ci nekk daal lees sa xel may ngay def rek koo xam ne ne gëm nga ne xeex mën na la ci génne di xeex koo xam ne aussi bëri mën na la ci jàpp nga ne bëri mën na la ci génne di nga bëri. keroog seetaan nga combat général a fils de Balla. non jotuma ko seetaan nag seetaan seet ko seetaan nag affiche rek laa gis quoi waaw waaw. xam naa doo mën a sori. ana Modou Lo fu mu ne. amiin. waaw mi ngi waajal bi renvoi yi ñu koy renvoi. du du jur dara ci ci préparation bi wala yu jëm loolu ci athlète. waaw renvoyer combat moom ne euh, dafa métti parce que ku soñoon boo amee combat date bi jot nga jàll ci leneen mais xaar mais nag lu war am la rek am na waaw. écurie Rock Énergie actuellement yan xale ñoo fa am komba waaw ñu fa am combat bari na Biotope am na combat bon Serpent Noir bari daal xale fa am combat Mbacke am na combat Lamine Sène am na combat waaw Ahmed Diouf am na combat. waaw lii mooy seen ñaata sorte. waaw actuellement nii bu soobee bu ba léegi amaguñ benn temps bii mooy première bi. mooy première waaw. première ouverture. écurie buy dem du doon pression ci ñoom. waaw pression moom muy premier rek deuxième ak dernier ci yam victoire ko bëgg nekk ci pression loolu mënul ñàkk mais nag lamb la dafa metti balaa balaa sedd rek nga am ndam ñooy jubilé c'est normal. maa ngi lay jaajëfal baax ñoo ko bokk ginnaaw ba ñu sante yàlla si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di nuyu waa Parcelles yëpp 26 di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ngeen ma fekkal fii muy samay xarit sama doomu ndey nga xam ne sama combat ñëpp ñu sama ginnaaw seetaan nu ma waaw di nuyu ki nga xamante ne mooy sunu kilifa di suñu grand Ousa 2 xam man sama dugg ci làmb lépp si loxoom la jaar sama premier combat arène moo ko dox moo ko wax ba bi moo koy bëre kon tey man su ma amee kilifa si làmb Ouza numéro 2 la dama koy ñaanal yàlla lépp li mu bëgg si xolam moo xam yàlla na ko suñu borom defal mu gis ma mu ñàkk ma gis maa ngi koy ñaanal te sama doomam laay mës di doon ba àdduna di tuki mënu ma am lu ko gën mënu am lu ko ëpp moo ma dugal si bëri dóor utal ma combat doxal ma lépp lépp lu ma tey def ba nit ñi naw ma moom naan téye këram saa ma jógee entraînement toog ñu ataaya muy waxtaan del def nii del def nii xa nga di ñaanal daal ñaanal waa parcelle mbëri am combat yàlla yàlla may ndam di ñaanal waa parcelle 1 ba 26 Grand Médine di woo ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu may dégg ma leen di woo si combat bi ñu ñëw ñaanal ñu ñaanal seen doom yàlla may ko ndam incha allah. teel a génn bi lu ko waral tey. waa tey loolu xam nga rek maanaam tey dafa gën parce que dafa gaaw timis mais du dara da fekk pare nañ ñu waroon def yëpp ñu teel a génn def lu ñu war a def dem dugal suñu ruq di xaar dimanche jot incha allahu rabi ñu ñëw def li ñu war a def yàlla may ñu ndam incha allah ñu ñibbi si parcelle. waaw dafa tey boo xoolee bëre bi nga xam nga woon bëre fi xam mooy Médina te yóbbu na ko arène nationale comme li nga waxoon lan bëgg nga dellu si waat si rek comme à domicile la woon gars yi changé ko tey say supporters lay xaar gis ngeen laa gis am si loo jógee am fa war a jëm te la nga assuré supporters yi ñoom pare nañ supporters yi pare nañ stade bi ñun amalu ñu njëriñ ñun fuñ doon ñun bi ñu dugg si làmb dugg ñu woon pour stade bi làmb la ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu si ak pare na sama adversaire pare na ñun ñëpp ñu ngi def li ñu war a def kon dañuy xaar jours yi rek yàlla may ñu ndam ñu indi ndam li parcelle incha allah dama laaj sax Amdi Moustapha sa digganteeg Tafa sa digganteeg Ada Fass seen diggante amu diggante moom moo la mas a laaj yow da ngay dëggal ne Tafa Ada Fass moo la mas la yàgg a laaj boo dajeeg moom noo ko war a def. bi mu duggee ci làmb ba léegi mi may laaj donc loolu noonu yaakaar naa ñëpp xam nañ ko mais nag boo tokkee mbër ba fii da ngay ñëw wane li nga a wane làmb ji yaakaar naa signature ba wax nañ fa liñ fa waroon wax instant yi moo des dañ ñaan yàlla may ñu tal ak fekkee bis ba ñu jëf yàlla may ñu dam incha allah liggéey nga lu la leer ne actuellement fi mu nekk nii bés ba euh, maanaam moom Ada Fass bu ngeen dajee ci xeex wala ngeen dajee si bëre maanaam du yóbbu ko neex bu arbitre sifflé du yóbbu lu ko neex incha allahu pare nañ ci côté yëpp waxamatul jëf moo am yàlla nañu yàlla may ndam ci kaw Ada Fass incha allahu rabbi. mais Tapha euh, bu arbitre sifflé kuy loolu yëpp bu ñu ci bis ba dina ko xam man pare naa li ma war a pare nee naa la wax ji wax nañ ko ci signature ba li ci des rek mooy bis ba jot. wax amatul jëf rek a des. Eh, eh. ah Tapha nga dégg aada démb nee na moo la ëpp doole moo la gën a réew moo la ëpp supporter moo la gën a dof ci ay kàddoom. loolu waxam la rek dama ne lool moom jàkkaarloo nañ xam nga li may koy ñaanal rek mooy wér ak tal ak fekkee ba bis ba parce que làmb ji yaakaar naa ñetti fan moom wax moom bari wax la ko waa lépp lu wax ni moo ko ëppale na ko ëppale ba ñu bëri ba pare mais nee na moom yow yaru rek la la sant moom la am moom mooy mooy mooy attaquer mooy bañe mooy duma mooy daan loolu la moom la concerné li may def moom bu arbitre sifflé dina ko xam mais lépp lu mu wax rek moom la concerné léegi waaw am na solo lool moo tax ñu fonk nii di ñaan yàlla may ñu ndam boo gisee suñu grand Ouza 2 taxawoo ñu nii ça veut am na solo boo xoolee premier combat bi mu bëri si arène nee naa la moo ma taxaw moo ma ci dugal moo ma wutal lépp kon tey su ma gis ko sama ginnaaw damay xam ne noo lamb ji am na solo léegi am na solo mais dafa am foo nekkoon muy Grand Médine mbooloo nga jogee fa ñëw Rock Énergie laaj naa léegi Pape Mbaye sa coach mu ne am na yow am na loo xam ne nii def nañ ko ci yow loo xam ne dimanche war na feeñ dafa mbër yan soppeeku la sentir ci yaramam ci côté bëre ci côté xel ci côté dallu par ak bi mu nekkee Grand Médine ak Rock Énergie bi mu nekk tey. waaw damay sant yàlla rek ndax parcelle la lépp ci gétt gi la bokk kon tey dañuy ñaan yàlla Rock Énergie bi ma ñëwee taxaw nañ ma taxaw ba nga xam ne ne Pape Mbaye teg na ma coono yu méttee méttee métti écurie bi gën maa bëgg combat booy mbër yi du ma limee may juum. mbëri nekk si écurie bi teg maa ay coono yu metti ci bis ba incha allahu rabi yàlla nañu si yàlla may ndam bu seddu guy ñu kontaan équipe bi kontaan parcelle kontaan loolu rek laay ñaan incha allah. fan yi gis nañ surtout Guédiawaye moom dañ koy tudd boo xoolee ñu ubbi saison bi biñ ko ubbee quatre victoire lañ yóbbu suma juumul dimanche ba ca toppaat dimanche bi passé ñu gisaat ñu boîte victoire bu rëy. tey parcelle war a ñëwaat ci grand combat war ko seex ak Fass lan mooy motivation bi ci côté boobu. waaw ñëw rek jël si ndam ndam lañu indi saison bi incha allahu rabbi képp kuy ngemboo parcelle di dem uti ji incha allah ndam ngay ñëwaalee bu neexee yàlla suñu borom. Ah. loolu lañu liggéey ci loolu la ñuy dox ci la ñuy xëy ci la ñuy gont kon moom lañu gëm te incha allahu rabbi dimanche dañuy jëli ndam indi ko parcelle. bu neexee yàlla bu soobee yàlla suñu borom. ci xeex wala bëree. ci lépp bàyyiwuñu dara. combat combat bi li koy gagné liggéey nañ ko ba pare incha allahu nañ bàyyi ba bis ba wax amatul. mobilisation bi fausse toll. bi parcelle yëpp a pare bu ngeen gisee fii nu mu demee te tey jour ouvrable la waa dimanche ngeen di comprendre. gars nañ combat risque la lan moo tax ñu yóbbu ko arène. risque amul man gëwuma yooyu. Ah. man li ma gëm mooy xamal la. Ah. ñëw bëre daan ñibbi. risque amul ci làmb xale du jël risque. Ah. xale lu mu def war na koo def nee naa la xale du sonn day xiif rek. te góor du nelaw day noppalu. day noppalu dëgg la dëgg lu mu def daanu bu neexee yàlla suñu borom yàlla nañu yàlla may talak fekkee lu mu def daanu. mais nga ni góor kenn du ko yërëm. góor du yërëm góor. ku jekku sa morom. yéy. yéy ku jekku sa morom yéy. Fallou loo koy wax. looy wax Fallou Ndiaye mi tëgg làmb ji. waaw Fallou Ndiaye ñu ngi koy ñaanal jàmm. waaw di sant sama staff. waaw ku si mel ni ñoom Ousmane Diagne. Ousmane Thiam Papis Ñaama Jibi Gomis Cheikh Gomis ñoom Abdou Gomis di sant ñoom Moual bi ma Ndiaye Top ah ñoom Zim Tafa Faye am di Moustapha borom parcelle ñoom Ndiaye jéggi xam nga Ablaye Ñaan xam Ñas Teranga maa ngi koy ziar bu baax sama sëriñ sama xarit Ñas Teranga combat bi la Ñas combat Ñas Teranga dinaa la ko wax dinaa la ko waxaat. combat bi combat am la. Ah. waxal ñas teraanga. ñas teraanga. combat bi combat am la. dafa ne na combat bi sa combat la. di woo ñëpp ñu ñaanal. waaw ñëpp ñu ñuy ñaanal di woo sama mbokk yi Saalum Saalum yëpp. di leen wax combat bi seen combat la. di woo séeréer yeeg ñëpp mais nit da ngay am si xam nga gét di woo waa parcel mbaam nga gétt parcelle dama leen di wax ni combat bi. Ah. bëreewu ma ko ñoom ñoo ko war a bëre. mooy lan nañ ñëw boot seen doom. Ah. ànd moom gunge ko parce que drapeau am fii koy indi. buñ ñu seetaan parce que làmb dafa soxla jàppale daal maa ngi woo waa parcelle yëpp. presse bi loo leen di wax presse bi tey ni ñuy ñëwe waa presse bi signature ah, yi coono yi lan ngeen di wax presse boobu nga xam ne yéen ak ñoom yéen a bokk milieu bi. waaw presse bi dama leen di wax mais damay nuyu Marème borom Rena business ak Mouha borom Toba import export. waaw di ko nuyu bu baax di ko wax combat bi gaa ngi koy déglu. waaw Marème ñu ngi lay. yéen yéen presse bi nag. ñun amuñu seen fay. boo gisee ma teel a génn. respecté bi la. parce que dama ne sama gars yi presse bi dañoo bàyyi ñu def ñoo jël suñu nañ fexe 5 heures wala 5 heures 30 fu mu jotee ñu génn balaa timis sa jot ñu def li ñuy def ñoom li leen fi indi ñu am ko seen xol seddu ñu ñibbi parce que ñun bu du woon yéen kenn ñu xam parce que tey lu ñuy def sans yéen du am valeur malgré làmb ñëpp ko bokk uh-huh. mais presse bi dañ leen war a jox cër moo tax ñu def lii teel a génn jox leen cër di leen saaku ñaan xam nga di leen wax bu ñu def te neexuleen leen rek ñu ngi jéggalu te saa su ñu ngi ci lu leen neex parce que yéen ñuy génnee ñun lu ñu def bu ngeen ko génneewul du neex. li ngay fecc dimanche nu muy loolu dama koy nëbb nee naa eh, lamb ji lamb ji lépp sur lépp surprise la lépp surprise di woo imam Kader Père Galas borom xombal sama papa Fallou Mbaye waaw di woo waa Ndiassane yi waaw waa Ndiassane xam nga sëñ Bamba Kunta combat bi combat la maa ngi woo sëñ Bamba Kunta waa Ndiassane combat bi seen la maa ngi sàkku ñaan si ñoom yàlla may ma ndam mais yàlla baax na. dana ko man sa morom. maa ngi woo waa Jilaas. xam nga séeréer yëpp il di Saloum bi ma kenn parce que combat bi gars yi ñoo ko bëgg di woo sama yaay mère ami Dioum ah, bàjjanu gox kooku moom yàgg nañoo jàppale yéen journaliste yi aw ma seen fay ku mën sa morom ku mën sa morom yey